بلغنا الله واياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والعون على الصلاه والصيام وتلاوه القران اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وانتم بالف خير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 ñi ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigal bàyyi tere gannaaw loolu borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci alquraanul karim ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum wa qaala alayhi salaatu wa salaam man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dambi mbokki jullit yi borom bi subhaanahu wa taala nee weeru koor mooy weer wi nga xam ne ci lañu wàcce wàccee alquran ñu wàccee alquran mu nekk ak njub nekk ay yoon yu leer ngir jullit ñi man cee jaar ngir njub gi ñu man koo juboo yoon yu leer yi ñu man cee jaar mu ne nag képp koo xam nii weer woowu fekk na la fi nang ko woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp ku woor weeru koor ci yaari yëf képp tax nga woor ko mooy gëm goo gëm sa boroom ak sàkku goy sàkku ab yoolam nee na ku koo xam ne nii loolu képp moo tax nga woor weeru koor dees na ko jéggal bépp bàkkaar boo xam ne nii defoon na ko kon mbokk yi ñu fas yéene waxtaane ci sunu xutba tey bii yetti yëf walla yaar bu ci xajul bu jëkk bi mooy ngëneel yi nga xam ne weer wi am na ko ngëneel yi weeru koor ñu tudd ca yenn ndegam waxoon nañ la la nan nga ko war a waajale ngir ñu man laa sawarloo nag ci nga xam gan gi ngay teeru mooy kan nga xam ay ngëneelam ñaareelu tomb bi mooy ñu xam ay jagleem weer wi am na ay jagle yoo xam ne ni moom rekk moo ko jagoo moom rekk moo ko am yeneen weer yi amu ko bu ko defee ndegam amaana ajjuma ji mooy bu dellusee ci biir koor lañuy fekk amaana ñu waxtaane séentu weer ak yenn ci aju yenn ci atte yi ci aju ñetti tomb yooyu incha allah moom lañ bëgg a waxtaane bu ñu demee ci ngëneel yi weeru koor nga xam ne ngëneel yi moom weer wi moo ko moom weeru koor daal bokk na ci ay ngëneelam ne moom ci boppam weer wi moom ci boppam sabab la ci sabab yi tax nit dugg àjjana maanaa yoon la ci yoon yi yóbbu nit àjjana dañu jële ci jaabir ibnu abdillah radiallahu anhu muy saxaabi yu bu màgg mu ne benn waay dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ara ayta ida sallaytu almaktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu alxalaal wa xaramtu alxaraam wa lam azid ala dalika shay'a a adxulu aljanna fa qaala annabiyu sal allahu alayhi wa naam jaabir nee na benn waay dafa laaj yonent bi ne ko ara ayta wax ma ara ayta wax ma ba xam ida sallaytul maktubaat su ma jullee julli yi juróom wax ma su ma jullee julli yi juróom wa sumtu ramadana woor weeru koor wa ahlaltul xalaala ma daganal lu dagan lu mat a dégloo ngi noonu ma daganal lu la nga xam ne moom la yàlla daganal ndax daganal doomu aadama sañu koo def lu dul la yàlla daganal wa xaramtul xaraam ma araamal la yàlla araamal ndax araamal moom itam doomu aadama sëñu ko daganal ak araamal cërub sunu borom la akub yonentam keneen dugg ci mu ne ko su ma jullee julli yu juróom woor weeru koor tënku ci li dagan tënku ci li araam walam azid ala dalika shay'a ca du ma ca yokk tus ma bañ caa yokk tus a adxulul janna su ma defee loolu ndax danaa dugg àjjana fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam yonente ba nekkoon naam loolu kay boo ko defee danga dugg àjjana julli juru yi juróom woor weeru koor lu yàlla daganal nga daganal ko lu mu araamal nga xaraamal ko ca bañ caa yokk dara loolu kay boo ko defee danga dugg àjjana kon mu mel ne woor weeru koor yoon la sabab la ci sabab yi nga xam ne day tax nit ki dugg àjjana loolu ngëneel lu réy la ci weeru koor ñaareel bi weeru koor yu kaffirul xataaya dafay far ay bàkkaar weeru koor day fari bàkkaar jële nañ ci faan abi hurayrata radiyallahu anhu jële nañ ci abu hurayrata yal na ko yàlla gërëm mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alsalawatu alxams waljumatu ila aljuma wa ramadanu ila ramadana mukafiratum ma baynahunna ida jtanabal kabair wala ida jtunibatil kabair waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli yi juróom julli ji juróom julli ak moroom ja waxtu julli ak moroom ji julli yi juróom manaa ko leen saxal wal jumaatu ilal jumaa ak ajjuma ak moroomam ajjuma ak moroomam la dox ca diggante ba julli yi juróom yi dox ci seen diggante ci ay rëcc-rëcc ajjuma moroom ja li dox ci seen diggante ci ay rëcc-rëcc weeru koor ak moroom ja dox ci diggante ba ci ay rëcc-rëcc yonent bi dee na lu dox ci diggante ba ci ay rëcc rek yooyu danañ ko far danañ ko far waaye nag ay rëcc-rëcc la ida tuni tunibatil kabair bu fekkente ni bàkkaar yu rëy yëg maanaam nit ki bu fekkente ni diggante julli ak moroomam dafa def bàkkaar bu rëy kat mooy na julli ga daa baaxul diggante ajjuma ak moroom baatam bu fa defee bàkkaar bu rëy mooy ne ajjumaam dafa nanguwul diggante koor moroom jaatam bu fi defee bàkkaar bu rëy mooy ne koor ga dafa nanguwul yii yu ci nangu yu ne dana dox sa diggante ak bàkkaar yu rëy yi bu ko defee nag ay rëcc rëcc nag moom doomu aadama mënu koo ñàkk bu ko defee ñoom ñoo koy far rëcc rëcc yi nga def ci diggante bi kon weeru koor loolu ngëneel la ci ay ngëneelam ñetteel bi weeru koor sababun min asbaabi maghfirati zunub sabab laa cam ci yàlla jéggal la say bàkkaar yaakaar naa ni xadis boobu ma waxoon léegi ne képp ku woor weeru koor ci ñaari yëf dong tax nga woor ko mooy gëm yàlla ak sàkkub yoolam yàlla dana la jéggal bépp bàkkaar boo xam ne nii defoon nga ko loolu ngëneelul weeru koor la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na raxima raxima am fu rajulin daxala alayhi ramadaanu thumma nsalax qabla an yuxfara la nee na waa nee na nit ki torox nit ki perte mooy ki nga xam ne weeru koor da ko fee fekk muy yàlla may ko muy dund ba weeru koor génn ci jéggaluñ ko ay bàkkaaram kooku mooy ki perte weeru koor fekk la fi yàlla ngay def ngay dund ba weeru koor génn ca say bàkkaar kenn jéggalu la ko kooki mooy ki torox kooku mooy ki perte yàlla nañ ci yàlla musal kon weeru koor day day tax nit ki ñu jéggal ko ay bàkkaaram bu ci defee tuuti effort rek su ñu ñëwee nag ci jagle yi mu ñaareelu tomb bi yi nga xam ne weeru koor moo ko jagoo dañ ciy tudd ay tomb moom it rek weeru koor day bokk na ci li mu jagoo mooy ne unzila fihi alquran wax naa ko ci laayo ji nga xam ne moom laa ubbee unzila fihi alquran weer la woo xam ne nii ci la ñuy wàcce ci la yàlla wàccee alquran ci la yàlla wàccee alquran bu ko defee nag yow man ngaa laaj ndax danga dégg moos ñu lay wax naan alquran da ci ñaar fukki at ak ñett la wàcc koñ buñ ne laa ci weeru koor la wàcc danga nga amub laaj loolu nan la mën a demee tontu la mooy lii alquran daa am ñaari wàcciin bu ci nekk ñaari wàccin yooyu bu ci nekk fa mu jógee ak fa mu jëm bokkuñu wàccin wu jëkk wi mooy wàccee gañ ko jële jële gañ ko jële ca allawxul mahfuz allo allo joojee nga xam ne yàlla moo ko garde moo ko moo ko sàmm jële gañ ko fa jële indi ko ci barab bu ñuy wax baytul izza baytul izza mu nekk ci asamaan si ñu gën a jege ci lan ci wax yi asamaan si gën a jege àdduna fa la baytul izza nekk baytul izza mooy lan fii ci àdduna dafa am alkaaba kaaba googi mooy mooy digg àdduna ñu fay jaamu sunu boroom doomu aadama yi ñu fi jaamu seen boroom ak jinne yi walla sax bu la neexee nga ne ak malaaka yi amaana waaye baytul izza nag mooy point ba jàkkaarloo kaaba ga ci asamaan nga xam ne boo fa daanu woon ci kaaba gi ngay dal foofa mooy baytul izza baytul izza googee ka malaaka ya rekk ñoo koy tawaaf fii nun ñoo koy tawaaf kaaba bi waaye foofa malaaka yi ñoo koy tawaaf ca waxtu wu nekk sabuuna alfu malak juróom-ñaar fukki junniy malaaka danañ fa danañ ko wër ca malaaka mu wër dootoo dellu ca ba ko yàlla sàkkee ba tey ba keroog àdduna di tukki noonu la sa dëkke loolu nag dalay wax ne kon malaaka yi ñu baree bare la juróom-ñaar fukki junni ci saa su ne ca benn du dem dellu wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu yàlla rek moo xam ay malaakaam nuñ toll kon jële gañ ko jële ca baytul eh, allawxul mahfuuz andi ko ci baytu baytul izza loola ma ngi amee woon ci biir weeru koor loo tax looloo tax ñu ne unzila fiihi alquran mu am geneen wàccin mooy wàcc ga mu jóge jóge ga mu jóge ci baytul izza nag jëm si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci àdduna loolu mooy li nga xam ne moo am ci diirum ñaar fukki at ak ñett moo am ci diirum ñaar fukki at ak ñett ñu koy comp ndànk-ndànk di ko indi ba ba mu jeex ba yàlla ne al yawma akmaltu lakum diinakum kon ñaari wàccin yooyu ñoo am bu ñu waxee ne unzila fiihi al quran wàcc gu njëkk gal moo tax ñuy wax ca wàcc googee itam ci genn guddi la amee muy laylatul qadr inna anzalnaahu fi laylatil qadr genn guddi ci weeru koor kon ci weeru koor la ci genn guddi fii la inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka kon loolu benn jagla la ñaareelu jagla bi nga xam ne weeru koor moo ko jagoo tuddoon naa ko ci sama xutba bi weesu weeru koor tuftaxu fiihi abwaabul janna bunti àjjina yépp dañ leen di ubbi juróom-ñetti bunt waaw dañ leen di ubbi watu xàllaqu abwaabu naar bunti sawara yépp itam ñu tëj leen watu safadu shayatin seytaane yi ñu jéng leen loolu la abu nett li jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ida jaa ramadaanu futtihat futtihat abwaabu aljanna waxul futtihat maanaam tashdid googu li muy jëriñ li ñuy ubbi dafa bari bunt yi dafa bari te dañ leen di ubbee bam ne nal loolu lay jëriñ bari li ñuy ubbi ak ubbi ko guñ leen di ubbi ba mu ne ŋàll looloo tax mu ne futtihat abwaabul janna waaw duñ leen ubbi ndànk nii rek dañ leen naan ŋàll ci yépp lañuy ubbi bu ne woon futtihat kon li ñuy ubbi mën naa bañ a bari mën naa bañ a àgg itam ci ŋàll ubbi ba mu ne ŋàll waaw futtihat abwaabul janna wa xulliqat abwaabu naa naar nee na bunti sawara yeetam wa xulliqat la wax waxul xulliqat bu ne woon xulliqat dañ koo tëj rek mën naa am li ñu tëj bariwul ca tëj jeetam mën naa bañ a àgg ne kepp waaye bu ne xulliqat bi tashdid loolu mooy ne bunt yi ñu tëj dafa bari waaye dañ leen a tëj hermétiquement dañ leen a tëj tëj bu fort ba nga xam ne ëmmatul fu fi dara dara mën a jaar wa xulliqat abwaabu annaar wa suffidati shayatin nee na seytaane itam dañ leen tënk tënk yu dëgër moo waral suffidat waxul sufidat wa suffidati shayatin kon tashdid googu taksiir fil mafool la day bari li ñuy ubbi mafuul ji day bari abwaabul euh, janna ñu ubbi leen ndax koor gi moom loo def rek yàlla fulandeel la saw yool bi loolu ak ubbi la waaye fi nga xanee tam abwaabu naar ñu tëj ko gis nga fi nga xane euh, cër yi nga xane ku dugg sawara benn ci cër yooyu ñoo la dugal sawar sawara cër yooyu yépp itam koor da leen di yar ndax lu mu leen di yare xiif la leen di yare mar la leen di yare lu mu leen di yare maanaa tëj seen bànneex la leen di yare wan nafsu in adat alayki in adat alayka fa join bakkan bu fekkente ne dafa laa bëgg ëpp doole amul lenn luñ koy yare amul lenn luñ koy yare lu dul xiif rek xiif rek moo mën a yar bakkan wa nafsu in adat alayka fa ju'i xiifal rek boo xiifee rek man sa bakkan ah seytaane tam xam ngeen ni foofu la daa jaar bu cër yi dundee am la bëgg seytaane daal leen di man di daw ci sa derit di daw ci saw yarim comme ni derit di dawee ci sa mu ci say sa diit kon loolu tam benn ngëneel la ci ngëneel yi ko be astafurlah benn jagle la jagle goo gis itam ngëneel la benn jagle la ci jagle yi weeru koor ñetteel bi ci lañuy jeexale jagle yi mooy ne al umratu fi ramadana taj taadilu xajjatan ma annabii sallallahu alayhi wa sallam omra goo xam ne nii nit da koo def ci biir weeru koor mu ngi tolloog aj goo xam nii danga ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa aj ko xam ngeen ni bu tolloo woon ak aj képp rëy na waaye yëmul ci tolloog ak aj rek waaye aj goo xam ne nii da nga koo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa umratun fi ramadana taadilu xajjatan ma annabii sallallahu wa sallam loolu weeru koor moo ko jagoo jële nañ ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam limraatin min al ansaar wax benn yonent bi wax ne benn jigéen bu bokkoon ci ansaar ne ma manaaki an tahujji mai maana lan moo la tee bi ñuy aji nga ànd nun dem aji yonent bee ko laaj jigéen jooju nga xam ne ansaar ya la ko tontu qaalat lam yakun lana illa naadixaani lam yakun lana illa naadixaani nun kat ñaari giléem képp lañ am ñaari giléem képp lañ am moom la yàlla jox fa xajja abu waladiha wabnuha ala naadih sama doom ak sama boroom kër jël genn giléem ga aje ji ko naadih nag buñ ko waxee mooy giléem guy root gileem guy root waaw teen yi day gudd a gudd ba nga xam ne deesu ko mën a jukki waaye dañuy takk buum gi ci giléem gi bu demee ba àgg duy giléem gi dox jëm na le kii li muy li muy xëcc di génn looloo tax ñu tudd ko naadex nadaxa mu ne ko nun ñaari giléem rekk lañu am ca genn gi sama borom kër ak saa doom ñoo ci ñoo demoon aju ci geneen gi mu bàyyil ñu ko fi ñu ciy root waaw ndax bu fekkonte ni dem naa aji kon moo ñaari giléem yépp mooy dem kon ke ñi des ci kër gi du am du ñu am ndox lii mooy moo teewoon ma aji sama boroom kër dem ak sama doom ñu bàyyil ñu fi génn giléem gi ñu ciy root wa taraka lana naadixan nandaxu alayhi qaal yonent ba ne ko fa ida jaa ramadaanu fa atamiri fa inna umratan fiihi taadilu xajja mu ne ko bu ndegam ajoo nag bu ramadan dikkee nanga dem nga umra ndax umra ci biir ramadan dafa tollook ak aj li tax ma ne nag ak aj ma an nabi sallallahu alayhi wa mooy beneen riwaaya ba beneen riwaaya ba nga xam ne muslim moo ko nettali dafa ca lam wax moom fa inna umratan fi ramadana taqdi xajjatam maay omra ci biir weeru ramadan dafay fay ak aj goo xam ne nii dafa faatoon nit ki ca aj googee mu waroon a ànd man yàlla na nu yàlla defal ak dégg ak ukrab aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa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 ñu ñëw ci ñetteelu tomb bi ma waxoon weeru koor weeru baraxlu mel na ni mi ngi tàggatoo weeru koor war ñëw ñu di ko séentu weer nag weer nun wi nga xam ne mooy weeru jullit weer wu ñuy séentu la maanaa nekkul loo xam ne dañ koo calculer ci jant bi waaye ci weer wi la weer wi lañuy séentu bu ko defee nag séentu weer séentu weer ci boppam fardu kifaaya la fardu kifaaya nag buñ ko waxee mooy loo xam ne nii bu ko ñenn defee wàcc na ca des waxuñu ne bu ñu demee ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñépp day war ci ñoom ñu génn di séentu weer wi déedéet bu ko ñenn defee rek doy na waaw ñu ko def rek wóotu nañ ca seeni moroom loolu ñu xam ko ndegam nag mbir la moo xam ne nii ñu ko def rek wóotu nañ ca seeni moroom ku ko def ku nekk wóotu nga ci sa moroom looloo tax itam da cay doy da cay doy gis-gisu kenn ku maandu gis-gisu kenn ku maandu ci duggug weeru koor weeru koor ak duggam gis-gisu kenn ku maandu doy na ca waaw waxuñu sax gis-gisu ñaar ñu maandu waaye kenn ku maandu képp koo xam ne nii xam nañ ne ku am diine la koo xam ne nii xamuñu ko ci ak mooy yàlla xamuñu ko ci ak caay-caay mu ne gis na weer wi kooku ak gisam rek doy na bu ne gis na ko ñépp war nañ ci am maase ñu woor abdullah ibnu omar dafa ni tara am naasul hilaala nit ñi dañoo séentu weeru koor weeru Shaabaan bu muy jeex dañoo séentu weer wi fa axbartu rasul allahi sal allahu alayhi wa sallama anni raaytu ma ko nit ñi day ñi ngi doon séentu weer wi nit ñi ñi ngi doon séentu weer wi waaye man dama koo gis ma wax yonent bi sal allahu alayhi wa sallama ne ko gis naa ko jaabir mooy wax de ma ne ko gis naa ko moom képp moo ko gis mu wax yonent bi ji ne ko gis naa ko fa saamahu wa amara naasa bi siyaami yonent ba daldi di woor daal di ne ñépp itam nañu woor ndegam jaabir nee na gis na weer wi ca jaabir commando la ab sahaabi la kon na ñépp weeru koor bu ko kenn bu ne gis naa ko ñépp war nañ caat maase ñu woor jullit ñi nag loolu seen problème la léegi ñàkk wóolante gi ñàkk a doylante gi waaw waaye lii mooy diine euh, bu fekkente ne nag nit ki da koo gis moom kepp da koo gis moom kepp ca séedewul ne gis na ko walla sax nee na gis na ko waaye dañ koo weddi ne ko doyooñu kooku lan mooy àtteem àtteem day mooy ne na woor moom moom ci boppam na woor li ëpp daal loolu lañu wax na woor moom ngir yépp moom la ñu wax kooku na woor am ñu ne déedéet ndegam gis na ko te newul gis naa ko wala mu ne gis naa ko ca ñu weddi ko bu mu woor ndax dafa am xadis boo xam ne nii day wax ne astawmu yow mu tasuumu yow ma tasuumuun koor ma ngay amee ca bis ba mbooloo miy woor wal fitru yow ma tuftiruun korite tam ma ngay am ca bis ba mbooloo mi di wari wal adha yawma tudaxuun tëbaski itam ma ngay am ca bis ba ñuy tëbaski am na ñooñ ci loolu lañ ci ñu ne kon déedéet moom du woor na nekk ba mbooloo mi woor mu doog a bu ko defee weer nee naa la woon kenn doy na ci ne bu ko gisee kenn ku commande bu ko gisee ñépp war nañoo woor waaye ndax loolu day fekk ñu bokk ci barab bu ñu nekk boo xam ne ni barab bi ñu nekk jant bi ñoo koy ñooy fenk sunu jant mooy fenkandoo ñoo mooy sowandoo wala déet am na ñu ne déedéet jant bi duñ ci sart ñu maanaam gis gi duñ ci sart ñu ne day sunu jant day fenkandoo di sowandoo fu mu mën feeñe ci monde bi fu mu mën a feeñe ci monde bi ndegam ay jullit wax nañ ko bu fekkente ne mbooloo mu bari la moom kenn du ca sa ca charte ak maandu bu fekkente ne kenn ko wax ca ña ca des yëg nañ ko ñoom ñëpp dañoo war a woor moo xam seenu jant day fenkandoo moo xam day sowandoo walla déet loolu lañuy ñuy wax waxdatul mataali am ñoo xam ne ni dañ ne déedéet ixtilaaful mataali déedéet lay tax bu kenn nee gis na ko ñu mën caa jàpp day fekk kooka nekk ci barab boo xam ne nii nun ñëpp suñu jant mooy sowandoo suñu jant mooy fenkandoo comme lu mel ne sunu lu mel ne Sénégal Gambie Mali Mauritanie yooyu yëpp jant bi dafay fenkandoo dafay sow sowandoo benn benn benn benn àtte bi la fuñ ko fi gisee dañoo war a woor fuñ ko fi gisee dañoo war a wori loolu mooy ixtilaafu euh, euh, mataala bu ko defee nag weeru koor kenn du sukkandiku ci li ñuy wax ay satellite di ko seet di ko seet ndax satellite mu nga ca biir asamaan sa walla fa gën a kawe sax fa weer way feeñe foofa kenn du fa moo tax li ñuy wax satellite satellite ku fa nekk lépp loo xam ne nii ay biddiw la wala ay jant yaa ngi cee teg sa bët foofa du ñu nangu ñi ngi ci yor satellite seeni xibaar duñ ko duñ duñ duñ duñ deesu ko jëfandikoo ndax yonent bi dafa ni suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi maanaam gis la ko tënk maanaam koor gi ak koor gi yëpp da koo tënk ci gis tënk ko ci ñu dem seeti ko ci ay satellite ak yooyu moo taxoon sax mu ne bu fekkente ni dafa niis ba mënu leen koo gis mi ngi fi waaye mënu leen koo gis bu boobaa nangeen matal eh, eh, baraxlu wi na ngeen ko matal fanweeri fan mi ngi fi waaye mënu leen koo gis baraxlu wi def leen ko fanweeri fan waaye nag am na yuñ mën a jëfandikoo ngir di seet weer wi mooy li li ñuy wax xubba falakiya mooy ay ay barab lay ci yoo xam ne nii affaire euh, euh, boo fa duggee manaa mën a gis weer wi day yomb waaye yaa ngi ci suuf nag nekkoo ca kaw loola moom mënees na koo jëfandikoo waaye nag nekkul lu war itam nag nekkul lu war foofu moom ku fa demoon da nga séen weer wa lu mu làqu-làqu da ko séen waaye nekkul lu waaye buñ ko defee tam nag baax na niki noonu ay calcul yu jëm ci astronomie def ay calcul yi ngay gis ci calendrier yeeg yooyu nga xam ne ay calcul la yooyu itam deesu ci sukkandiku bu dajeek gis bi baax na bu dajewul ak moom itam kenn du ca sukkandiku looloo tam jar naa xam bu ko defee li may jeexale mooy ne weer daal buñ ko séentoo ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci yàlla def ñu gis ko Ramadan teru na buñ ko gisul nag nañu matale fanweeri fan fanweeri fan nag ku ko am moom. ramadan daal nay dugg yal na nu yàlla defal ak dégg akuk topp yal yàlla defal ak dégg akuk topp yal na nu yàlla defal ak dégg akuk topp allahuma sallimna li ramadana wa sallim ramadana lana wa wa tasallamhu minna mutaqabbala yal na ñu yàlla jox ramadan jox jël ramadan jox ñu ko ca jël ko ci nun ca nangul nu ko yal na ko yàlla def mën na ko sañ na ko yàlla na ko def ca defal ko bépp jullit ca yóbbu ñu ca ak jàmm salaam ak wér ba ñu ko koo màng ba lañ cee séentu ci ay yool yépp ñu mën koo am qumu ila salaatikum yarhamkum allah بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وانتم بالف خير